mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suñu aaye bu jëkk ci suratul ahzab alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam di fas yéene jël benn bind ci téeréem bu tedd bi di ko ñaan subhanahu wa taala moom mi yónni woon ab yonentam ngir mu bégal jaam yi ci lenn ci jaamu yàlla ya mu bokkoon ca lim ñu daan bégale mooy ña daje ci ab néegam di jàngub téeréem doonte ne ni lu jiitu woon am na ñu bari ñu nekkoon ci ay gox di bëgg a téewe lu mel nii ca mënuñu ko woon suñu borom it dolli ci beneen nattu muy feebar bi nga xam ni tey jii daanaka ñu bokkul ci quartier bi dana jafe ñu mën a ñëw di teewee darsi ñoo ñëpp ñu ngi leen di bégal ca waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon wax wa rajulun qalbuhu muallaqum bil masajid ñu boroom ay payam ma ngi koy jagleel ñi seen xol aju woon ca jàkka ja ca jàkka ya ndax xam na ne du ñëpp a mën a teew walilahi alhamdu it suñu boroom jafe-jafe bu nekk dana ci wutal ak yombal loolu moo tax ba heure boo duggee ci xam islam point com xam sa diine bi fan yi dañoo gis dañoo nekk ci ay jafe-jafe waaye boo duggee xam islam point com dars yëpp da nga ko fekk foofu naka noonu yi tamit su doon te ne ne groupe bi aji ci jàkka ji soo yónnee woon sa numéro ci 77 814 42 20 da nga ca mën a dugg ba di jot dars yi directement mboolem ñi ko siq yal na yàlla boole ñu nangul tey jii moom mooy ñetteelu fan ci weeru février deux mille vingt et un di tombeek la nga xam ne mooy ñaar fukkeelu fan ci jumaada al axira ci mille quatre cent quarante quarante deux incha allah kon su dee Cheikh Ousmane pare na mu delal ñu suñu aay bu njëkk.
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
barakallahu fiikum kon suñu borom mu ne bismillahi rahmani rahim yaa ayuha nabi ey yow yonent bi ittaqillah ragalal yàlla wala tuti alkaafirina walmunafiqin te bul topp yéeféer yi ak naafiq yi inna allaha kaana aliman xakima sa borom yàlla day nekk na aji xam nekk na aji ku xereñe alxakim mooy kiy atte lu jub cay tëral lu nekk ci lu jub wattabi ma yuuxa ilayka min rabbik toppal li ñu wax yu jëme ci yow mu bawoo ci sa borom inna allaha kaana bima taamaluuna xabiira yàlla day nekk na ci li ngeen di jëf di ku ci ñàkk kumpa wa tawakkal ala allah na nga wékku it ci yàlla wa kafa billahi wakila te doy na yàlla rek muy aju ku ñuy wékkoo maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi yàlla day deful ñeel benn góor ci ñaari xol ca biiram ba wa ma jaala azwaajakum allaa'i tuzaahiruuna minhunna ummahaatikum defulit seen soxna yi nga xam ne yéen a ngi leen di gannaawal di leen yemaleeg seen gannaawu yaay defuñu leen ñu nekk seeni yaay wa ma jaala adiyaakum abnaakum defulit ñi ngeen di jël di ko doomo déedéet yàlla defu leen ñu nekk seeni doom ñi ngeen di woote woo yàlla defu leen ñu nekk seeni doom zalikum qawlukum bi afwahikum loolu koy ñeel na leen muy wax ji ngeen di wax seeni gémmiñ rek wallahu yaqulu alxaq yàlla nag mooy wax dëgg wa huwa yahdi sabil te mooy jubale ci aw yoon yàlla nañu boole jubal mbokk kon lii mooy suratul ahzab di suñu njëlbeenu saar bu ñuy dajeel mu wàcce madina gannaaw bañ jógee ca suuratu nuur diggante nuur ba ahzab saar yi ñu fi jàng yépp makka la wàcce saaru makka yi de manière générale pas-pas lay defar mi ngi noonu ci nit ki li mu war a gëm ci mbiri yàlla ki malaakaam ak àllaaxira amma bu dee saaru madina yi la cay gën a feeñ mooy comportement bu jullit ñi war a am na doon ci seen comportement personnel seen diggante ak seen boroom walla bu ñu war a amal seen diggante ak seen biir di saar boo xamee ni nii wareef la ci bépp jullit mu jàng ko waaye rawatina suñu mbokku jigéen ñi jigéen ñi am nañ ñetti saar yoo xam ne dañ leen koo jagleel lu mel ne suratu nisa suratu nuur ak suratul ahzab loole jigéenu jullit bu nekk war naa xam atte ya nga xam ne moo ci nekk saar la boo xamee ne nii it danañu wax lu bari ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawatina dundam ak njabootam wax ñu fitne bi gën a rëy bu yonent bi ak sahaabam doon dund te mooy gazawatul ahzab suñu borom mu ne hunaalika ibtuliyal mu'minuun wa zulzilu zilzaalan shadiida mooy li gën a tar lu yonente bi ak saxaabam di dund saar bi ma ñu koy nettali ak yeneen yoo xam ne incha allah daañ ko fekk ci biir saar bi suñu borom yàlla ubbee ko ay yow yonente bi annabi mooy koo xam ne yàlla moo ko xamal yàlla ko xamal naka lañ ko war a jaamoo rasul mooy ko yàlla yónni ci xeet looloo tax bépp rasul nabi la waaye bépp mi ngi noonu bépp rasul nabi la nit nag mën naa nekk nabi ci du nekk rasul waaye base bi mooy annabi nga xam ne yàlla xamal ne ko ne nii laa bëgg ñu jaamoo ma ko suñu borom mu ne ko ragalal yàlla waaw gaa yi nagam yàlla yonent yàlla bi la wax ragalal yàlla ndax keneen jomb na ñu ne ko ragalal yàlla loolu mbokk kenn jomb ko lii problème bi nag mooy ñun dañoo dem ba jàpp ne am nañu yàlla may ñu yegg foo xam ne du ñu juum ca mbokk yonent yàlla baa ngi nii suñu borom wax ñu ay njuumteem yu bari yoo xam ne def na ko def na ko keroog xare badr bi ñuy séddoo ngañaay yi def na ko digganteem ak ama def na ko digganteem ak ñoom joxoon ah, ndigal ñu toog ca ca ah, kii ak yeneen ak yeneen suñu borom di ko moytuloo ragalal yàlla ittaqillah mbokk ku mel ne Omar ibnul Xataab benn waay fekk na ko ci mbooloo sahaaba yi da ko Omar ittaqillah Omar jóg jël lexam teg ci kaw suuf da ko ah ragal naa yàlla kay lan laa def ba nga naan ma ragalal yàlla loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ittaqillah bul ma toppal yéeféer yi ak naafiq yi ay yéen jullit ñi suñu boroom ñun lay waxal jaarale ko cëb yonentam yow ndawal jullit xamal ne yoonu sa ngërëmal boroom yoonu ajjana mooy fa yéeféer yi jaar nga teggi ko su ma nañu wax leen fii téere boo xam ne ibnu taymiya rahimahullah bi dina ko mooy iqtidaau ala siraatil mustaqim bi muxaalafati ahlil jahim da ngaa bëgg a jub mu ne waaw jàngal yéeféer nga teggi seenu yoon jeex na mi ngi noonu bul ma toppal yéeféer yi suñu borom mu ne in tutiu lazina kafaru yarudduukum ala aqaabikum fa tanqalibu xaasirin su ngeen toppee yéeféer yi ñu génn leen seen diine mi ngi noonu naka noonu it naafiq yi kan mooy naafiq mooy yéeféer ba sol mbubbam julit ànd ak yow ca jàkka ja ca aj makka ga ca fu ne waaye nag diine moom gëmu ko da koo mbubboo looloo tax lépp lu sincère ci diine dana la découragé ba doo ko jëfee loolee mbokk suñu borom mu ne nañ moytu it yéeféer yi humul naafiq yi suñu borom mu ne humul aduw faxzaruhum noonu jullit ñi dëgg-dëgg mooy naafiq yi nekk seen biir mi nga noonu moytu leen leen ca mooy képp koo xam ne ni jullit la bu lay découragé ci jaamu yàlla borom bi subhanahu wa taala nag mu ne moom mooy aji xam ca ku ko topp xam na ko ku ko mooy xam na ko ca it mooy xakim mooy ki nga xam ne boo ko toppee du looy teete lu dul ci yoonu njëpp kon yaa ayuha nabi ittaqillah ca nga bañ a topp yi firég naafiq yi mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala dana ko woo ci saar bi juróomi yoon ci yaa ayuha nabi loolu lépp di wane ne lii mu nar a wax moom ab yonent la rek buy jottali ndigal yépp ay yonent rek buy jottali moo tax borom bi naka wattabi ma yuuha ilayka min rabbik bul topp yéeféeri bul topp naafiq yi ak kon lan lay topp mu ne ko toppal li ñuy wax yu jëme ci yow mu jóge ci sabaroo te loolu it mbokk saaga bi gën a rëy booy saaga jullit bokk na ci nga ne ko muhammad moom moo defar alquran moo wax alquran déedéet mbokk muhammad sallallahu alayhi wa sallam diini ji amu ci lu dul jottali amu ci lu dul jottali suñu borom mu ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuha du wax mukk bànneexu bakkanam lim leen wax yépp yàlla ko ko wax yu looloo tax ba léegi la ngi gis ay ndaw intellectuel di wax naan mais d'accord diine mais kii ñëw wax rek d'accord même bu ñu ay prophète mais nag ñun dañu am ay xel déedéet mbokk jullit xel yéegul ci diine xam nga kuy borom xel ci diine kii ne dégg naa topp naa amma di diingat aayay borom bi xel yéegul foofu abadan borom bi nag ne xam leen li ngeen ñi def dara ump ma ci alxabir mooy koo xam ne dara ump ko kooku kenn dong la muy yàlla lépp loo xam ne ni ngi koy jëf suñu borom mu ne xam naa ko te it kon doomu aadama bi ragalal yàlla ragal yàlla ba def ndigal yi ragal yàlla ba bàyyi tere yi kii ndigalu yàlla ñëw ci moom defu ko ragalul yàlla ki tere yàlla ñëw ci moom bawu ko ragalul yàlla kon borom mu ne li ngeen di def awma ci benn kumpa loolu mi ngi noonu gannaaw ba nag yow yenente bi heure boo jógee bëgg ragal yàlla bëgg a taxaw ci ndigalam bàyyi ay tereem ah problème dana am de noonu dana la jóge fu nekk léegi nag luy pexe borom bi ne ko wa tawakkal ala allah wékkul ci sa borom jalla wa ala te loolu itamit mooy la nga xam ne jullit gannaaw ba ko yàlla mayee pexe yam am mu def ko la ca des mooy di wékku ci boromam jalla wa ala mu ne ko it xamal ne yàlla doy na ci ku ñuy wékkoo wa kafa billahi wakila looloo tax ba mbokk sa diine yàlla ak bu mu ci bokk mukk yàlla ak sëñ diw yàlla ak cheikh diw yàlla ak di ak moom génne ko ci sa diine mooy yàlla rek yàlla kese moom ngay doy ci ki ngay wékkaloo tawakkal ala allah looloo tax ba képp koo xam ne yaa ngi jóg di jëm ci lu mu mën a doon yeneen ci bàyyi salaam jàngaloon nañu kii génn këram man nam bilal cam fàtte na ko ma ma fàttali ko ko kii génn këram boo génne nga naan bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah maa ngi gannaaw ba maa ngi wékk sama mbir yépp ci yàlla pexe kattan ci yàlla rek la am maadaama la hawla wala quwwata illa billah nga xam ne yeneen tamit nee na trésor la ci trésor u àjjana yi kenn amul pexe pour mën a tegg benn lor kenn amul kattan pour bañ a indi benn njëriñ ku dul yàlla kon kay tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah yow xale bi jëm ci examen bi tawakkaltu ala allah yow mi jëm ci tukki ba tawakkaltu ala allah yow mi sëyi tak tawakkaltu ala allah médecin ba tawakkaltu ala allah fépp foo xam ne yaa ngi fa jëm jiitalal yàlla ne yaa ngi sukkandiku ci yàlla ndax amul adduna yëpp buñ daje woon mënuñu laa teggil lor wala ñu ñoddi la njëriñ lu dul yàlla moo ci àll tawakkal ala allah borom boobu nag wëlbatiku nar a dàq ñeenti mbir ci suñu bind bi mooy page bi ñu nekk rek borom bi dana ci dàq ñeenti mbir mbir bu njëkk bi dafa am benn saay-saay bu feeñoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kookee dafa rëyoon am xel ba ay mbokkam di wax ne moom ñaari xol la am ñaari xol la am mu nekk naan Muhammad li muy wax lépp maa ko ko dàq suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala dajji loolu ne maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfi amul kenn ko am ñaari xol loolee ñu dégg ci ne loolu ay wax la amul am na ci lenn ci borom xam-xam ñu ni suñu borom dani defalul góor mu am ñaari xol ci biiram waxul deful nit mu am ñaari xol ci biiram ndax bu ko neexoon mu ne maa jaala allahu li basharin fi qalbayn min jaafi ñu ne lu waral loolu mooy jigéen bu ëmbee mi ngi xol doom bi mu ëmb mi ngi xol mais kon ci biiru jigéen ñaari xol nga fa léeg-léeg sax ñetti xol lay doon wala ñeent waaye gis nga mu ne góor góor moom benn xol nga mën a am léegi nag mbokk jullit benn xol boobee lenn la mën a bëgg mënoo bëgg lenn ak son contraire loolu mënta nekk kenn mënta bëgg dara ak la lam safaanool looloo tax xol boobu da ngay seet loo koy feesal wallahi mbokk xol bu fees ak ngëm yàlla shirk amu fa place xol bu fees bëgg yàlla bëgg leneen lu dul yàlla amu fa place naka noonu it sa xol bi boo ko feesilee ci ay caaxaan la nga xam ne mooy diine yàlla ji dafa am place looloo tax jullit bu nekk war di nemmee ko xolam lan lay bëgg ci xol bi ci xol boobu baaxee lépp baax ci jëmm ji bu bonee lépp bon même yow mi nga xam ne nii sa xol baax na it moytul de mboo ko xol mi ngi jóge ci xalaba luy wëlbétu ko arab yi dañ naan ma sumi al qalbu qalbun illa min taqallubihi xol dañ koo tudde luy wëlbétu ko lu tax li nga bëgg tey mën nga ko bañ ëllëg li nga bañ ëllëg mën nga koo bëgg loolu tax ba jullit toujours day moytu fitna moo tax ñaan yi gën a foor suñu borom jàngal ñu ko ñu koy ñaan mooy rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana yàlla yàlla boo wëlbati suñu xol gannaaw bu mu ñu jubale gis nañu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari woon na ci ay ñaanam allahumma ya muqallibal qulub mi ngi noonu ah sabbit qulubana ala diinik te yàlla yu muy lubati xol yi yàlla na nga saxal suñu xol ca la nga xam ne ni moom mooy sa diine ci mbokk loolu mooy benn bi yàlla jëkk a dàq maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ñaareel bi muy dàq mooy arab yi ak nit ñu ñuul ñeeg ñi nga xam ne amuñu ay teggin da nga ci daan gis ko mere soxnaam na ko yemale naa la ak sama yaay naka arab yi daan defe noonu la ko jullit ñii di defee yemel na la ak sama yaay suñu borom mu ne déet sa soxna moog sa yaay yéemuñu yaay fi mu jaar ak yow ak warma ji yaay am bokkul ak soxna bi nga xam ne dagal na ngay fanaan ak moom ci lal loolu tax boo demee ca suratul mujadala borom bi lu mu njëkk a wax ñoom day innahum la yaquluuna munkaran min al qawl la ñuy wax wax ju bon wax ju ñaaw la mi ngi noonu ca ñooñu du ñu seen du ñu seen yaay léegi rek ci la indi ay atte looloo tax ba képp koo xam ne wax nga sa soxna yemale naa la ak sama yaay la gënoon not ci borom xam-xam yi mooy sëy bi tasul waaye balaa dagan ngay ànd ak moom ci lal fokk nga woor fokk nga goreel ab jaam loolu ku ne xam ne Sénégal gi gis ñu fi jaam bu ñu goreel kon fokk nga woor ñaari weer yu tegaloo su dee mënoo woor ñaari weer yu tegaloo nga daal di doogoo leyal juróom benn fukki miskin te en général képp ko am ñàkki teggin gu toll ne jël sa soxna yemele ko ak sa yaay sa borom yàlla dana la nattu ba nga bëggaat ko ba takkaat ko xam naa ci ñett ñoo xam ne ku nekk wax na ko soxnaam ku nekk wëlbatiku na takkaat soxna si di di ànd ak moom ci lal gaa yi loolu ñaawu la waay ah ñaawu la waay ca du ci bëri yit da ngay gis du ñu nangoo woor ñaari weer yu yu tegaloo yooyee dañ indi si ñu lay ba bëgg caa génn doonte ne ni mbokk yàlla kenn mënu koo nax kenn mënu koo nax soo wooroon cinquante huit jours nga tey ko dog ko da nga war a reprendre ba tegale ñaari weer yu tegaloo soxna si dog laa daga borom xam-xam it nee nañu ki ne yemele naa la ak sama yaay ak ki ne yemele naa la ak sama doom bu jigéen ak ki ne yemele naa la ak sama bàjjen képp koo xam ne xaraam na nga sëy ak moom nga ne sa soxna yemal naa la ak kooku ku mel ne lu automatiquement dootul daggan nga ànd ak moom ci laal lu dul da ngay na da ngaa woor ñaari weer yu tegaloo loolu mooy lañ tudde ak zihaar la nga xam ne ñetteel bi suñu borom di dàq mooy bu njëkk comme ni mu amee tey da nga daan gis ku am benn doom benn waay benn xale wala mag sax nga dem ci mbooloo mi ne leen eey kii day bis nekk tey def naa ko sama doom dañu koy considérer sa doom loolu moo taxoon ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne zeyd ibnul xaarisa di koo xam ne xisaam dana ñëwaat ci biir saar bi waaye moom dañ koo jàppoon def ko jaam biñ ñëwee xadija moo ko mujjoon moom xika xakim ibnu xisaam moo ko jënd may ko xadija xadija may ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk ay waajuram moom ñi ngi koy wër papa ji mi ngi dof di wax ay wax ma ngay wër gox bu ne mu wër ko ku gis Zayd fekk ne ay gars ñoo attaqué benn gawar gu soxnaam nekkoon këf Zayd yóbbu ko foo ne nag ma ngi fay wër pour fu mu ko gis muy jaam mu jënd ko delloosi ko dem na ba yaakaaram jeex ba ay woy yim daan woy bokk na ca aka neexoon ma am xabaar bu wér ci ku ne ma fekk naa fa ñuy suul zayd te gaa yi xam leen ni ñetti doom yi dee moo gën a woyof benn doom bu réer yàlla nañ ci yàlla musal ndax ki réer moom du génn sa xel abadan chaque jour chaque ki yaa ngi naan ci naka la nekke naka la nekke ba mu wëree ba ñëw Madina ñëw ñu ne ko ah xale bu may bi ngay wax day laa jël yaakaar ne Muhammad mii kooku la moom la yor muy zayd bi mu ñëwee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu nekkagul yonent ne ko ah man de damay wër sama doom damaa dégg ñu ne yaa ko yor yeneen ci yàlla woo woo Zayd na ko xam nga ñii mu ne ko waaw kii sama papa la kii sama nijaay la yeneen ci bàyyi sam ne man laa juma leen dara jël leen ko ngeen dem ngeen nibbi Zayd mun a bàyyi nibbiwuma de waaw nibbiwuma de man fii laay toog waaw musuma gis nit ko baaxi ni musuma gis nit ko yaatu ni man fii laay toog comme bàyyi bi moom demoon na jàpp ne moom buñ ko wonoon bàmmeelam sax baax na tey gis nañu kii kii waa màkk gën a fonk te booba wooteegul yonent waa màkk moom lañ gën a fonk mu ne xelam dal na mu daal di nibbi yonent bi alayhi salaam it jàpp ci loxo Zayd ci kanamu kilifa màkk yépp da leen xëy yéen màkk bis na ki tey Zayd bi doomoo naa ko ñu koy wax Zayd ibnu Muhammad ci li yonent bi nekk màkk yépp ba yonent bi dem Madina ba yàlla wàcce suratul ahzab lépp Zayd ibnu Muhammad rek lañ koy wax léegi nag yàlla subhanahu wa taala nag ne déedéet bu kenn doomoo kenn ñooñu duñu seeni doom nañ leen delloo ca seeni baay looloo tax ñu wëlbati ko di ko wax Zayd ibnu al-Harisa radiyallahu anhu ma nga daanu ca Mu'tata moog Jaafar ak Abdullah ibnu Rawaha ak saxaaba yi ñu àndaloon radiyallahu anhum ajmain kon loolu la borom bi subhanahu wa taala wax borom boobu nag ne lii wax la ju ngeen di wax doonte ne yàlla mooy wax dëgg te mooy jubale ci aw yoon waaye loolu it mbokk xam nañ ne lislaam nim bañ a doomoo nit jël koo xam ne du sa doom nga taxaw ne kii sama doom la ñu la koy woowee jox ko saw sant nga xam ne boo dee comme sa doom bopp rek lay doon noo nit la bañ a koy bàyyeewoo nit kuy woote woo su ni ngeen dégg ci rajo bi am na kuy dox nee na nangam la sant di truand di nit ñi déedéet déedéet mbokk képp koo xam ne dafa woote woo keneen ku dul baayam loolee ci merum yàlla yee gën a tar ca la bokk loolu kon mbokk ñetti mbir mi ngi noonu suñu borom dàq na ko ñaari xol amul seen i soxna yi duñu seen yaay doom yi ngeen di doomoo duñu seen doom mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni uduuhum li abaihim dee leen woowee ca seen baay ya huwa aqsatu inda allah loolu moo gën a maandu ca yàlla fa in lam taalamu abaahum su dee xamoo leen seeni baay fa ixwaanukum fi diini wa mawaaliikum daañ nekk seeni doomi ndey ci diine doo nit ñi nga xam ne da ngeen leen di féetewoo walaysa alaykum junaaxun amuleen nag benn ngant fii ma axtaatum bihi ci loo xam ne da ngeen caa juum walakin ma taammadat qulubukum waaye dañ leen toppee la nga xam ne tey na ko seen xol ya wa kaana allahu gafuran rahima sa borom yàlla mooy aji kiy jéggalaate aji kiy yërëmaate annabiyu awla bilmuminina min anfusihim yonent yàlla bi moo gën a yey ci jullit ñi ci seen bakkan yi wa azwaajuhu ummahatu ummahatuhum ay soxnaam seeni yaay lañu wa ulul arham ña nga xam ne nag ñooy borom mbokkoo ga day baaduhum awlaa bi baadin fi kitaabillah lenn ca ñoom ñoo gën a yey ca la ca des ci téereb yàlla bi min almuminina ci walmuhajirin ñoo gën a yey ña nga xam ne ay jullit lañu ak ña gàddaayoon illa an tafaalu ila awliyaikum maarufa xanaa lu dul ngeen def ñeel ci seen féete yi la nga xam ne mooy ak njëkk kaana zalika fi lkitaabi mastura loolu day nekkoon na ci téereb yàlla ba doon luñ ca bindoon ba pare mi ngi noonu mbokk kon suñu borom dane di gën a maandu mooy nit ki ñu tudd ñu koy woowe rek baayam ndax xam ngeen ne nit ki nga xam ne dafa sant njaay ñu wëlbati ko naan ko jóob ko wax doomi jóob loolu la nga xam ne ni moom la mën a jur mën na ëllëg ci si biir sax dem ca famille Njaay bee siifa ak koo xam ne siifa ak moom daganul dana ànd ca famille Jóob ay àndin yoo xam ne nii daganul mën na donn donn goo xam ne nii daganul loolu yépp kon moo tax borom bi ne la gën a maandu ku nekk nañ koy woowe baayam te xam ngeen ne arab yi ñoom ni ñu amee sant nii amuñu ko ñoom toujours dañuy wax yaa ngi dégg Abdullah ibnu Omar Zayd ibnu Harisa ila axiri loolee kon nañ leen jox seen turóbaay bu doonte ne ñun ñuy amay santit ngalawaay nit ki sant sekk nañ ko wax sekk bu ko kenn wax ne géy la sant mi ngi noonu ki sant sow nañ ko wax sow bu ñu wax jóob la sant nañ ko jox aw turam borom bi mu ne nag su dee xamu leen seeni baay xale yoo xam ne dañ leen a for xamuñu ku leen jur suñu borom mu ne ah su boobaa seeni doomi ndey lañu ci diine ci seeni doomi ndey lañu mbokkoog diine na dox seen diggante waaye kenn dafa def mbokkoog deret walla ñoo xam ne ni seeni jaam lañu ngeen gorel leen su boobaa moom dara nekkul ci ñu tudde leen ko masalan fi amoon ab jaam gorel ko mën nañ koy tuddee péete waaye kenn du tuddu doom yu mel ne bokkoon na ca jaam yooyee kii di Salim Mawla Abi Huzayfa mi ngi noonu kooku nga xam ne mooy jàmbaar ba nga xamee ne nii mu taxoon jiite woon ña doon mokkal alxuraan keroog ba ñuy xeex ak musalimatul kazzab kon dañ naan diw péetam diw waaye kenn du wax doomi diw mawalikum léegi nag mbokk xoolal ci nga nekkal ñaari fukki at naan ko Zayd ibnu Muhammad Zayd ibnu Muhammad ndax mën ngaa xëy xëy ba ko déedéet suñu borom nag mu ne bu dee da ngeen a juum moom baal naa leen la leen di yàlla toppe mooy li nga xam ne tey na ko seen xol dan na dajeeg sëñ caam sëñ caam heure bu meree danaan barka cheikh diw heure bu fakk solo barka cheikh nangam heure bu lay ñaanal yàlla na la sëriñ diw mu dajee ku ko waar ba ne ko sëñ caam ab julit ci yàlla rek lay waat yàlla rek lay xettili ko yàlla rek lay doyloo mu gëm ko gëm gu wóor waaye ndax mën na ko def pendant cinquante ans xëy benn jour rek ba ko déedéet léeg-léeg mu mer wax ko léeg-léeg mu rëccile wax ko loole moo daloon sahabatul kiram ku ci masaan mer da nga naan wal laat wal uzza maa ngi waat ci laatuk uzza mooy seen xërëm yi gën a mag yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee ba jàngale diine ñoom ñëpp ñu xam laa ilaha illallah laat ak uzza ay xërëm yu bon lañu waaye teewul nit mer rek ne wal laat wal uzza yonente bi alayhi salaam ne ku ko wax ne wax laa ilaha illa allah loolu tax suñ caam fa fakka solo ba ne yaa cheikh waxal laa ilaha illa allah heure booy waat ne barke nangam ku dul yàlla ne laa ilaha illa allah mi ngi noonu yàlla mu ne duñu leen toppee ci li ngeen juum te loolu règle générale la ci lislaam moo ko yàlla baal nañu li ñu juum rabbana la tuaxizna in nasina aw axtana looloo tax suñ caam tey jii bu jógoo liggéeyoon ba wàcc ñëw xool gis benn boolub ceebu jën mu dóor ci ba gàtt fekk daa woor naan kaasub ataayam wëlbati eh damaa woor ndax am na ci bàkkaar amu ci benn bàkkaar amu ci benn bàkkaar bu dee borom xam-xam yi sant saar ñu ne da ngay fay bis bi nag amoo bàkkaar waaye da ngay fay bis bi borom xam-xam yi sant caam nag nee nañ ko derul ngay fay bis bi sax yaa ngi dégg ala kulli xaal li nga juum yàlla du la ko toppee lu dul nag yenn njuumte yoo xam ne mën naa jur fitna masalan tey jii ki juum rey nit mbokk ko mel noonu yàlla dana ko topp lu waral loolu ndax bu ko yàlla toppul woon ku ne bu ko neexee mu rey bu ñoo xam ne damaa juum am déet looloo tax même ki juum rey nit islaam danaan la da nga goreel jaam wala nga woor ñaari weer yu tegaloo léegi nag ñu doog a lijjanti mbokk ya nga reyal ndax dañ lay baal wala bu ñu la baalul da nga leen jox téeméeri giléem donte ne da ngaa juum tayoo ko waaye nag ay garde fou la yoo xamee ne nii daan tax nit ñi def attention ba duñu rey man nga ci jël benn misaal tey jii waa ji nga xam ne da doon da doon tukki tey jël otoom cent cinquante cent quatre-vingts cent cinquante cent quatre-vingts mën na dem ba ndar sans problème mais mën na rey nit ci yoon bi moom jubluwul woon rey nit waaye nag def na loo xam ne sabab la boo xam ne nii tax na mu rey nit looloo tax lépp loo xam ne nag dafa àddu ci yu demee woon suñu borom dana ci indi benn loi ngir nit ñi def attention waaye daal bu dee sa digganteeg sa borom moom bu dee wóor na leen ne da ngaa juum yàlla du la topp bàkkaar boobee fii ma axtaxtum bi borom bi nag subhanahu wa taala ni lu dul la nga xam ne seen xol ah, moo ko tey ndax yàlla mooy jéggalaate yàlla mooy borom yërëmaate borom bi wëlbati ko bàyyi loolu daa dina yéen jullit ñi xam leen ne yonent yàlla bi day moo gën a yey ci nit ñépp ci seeni bakkan looloo tax ba mbokk jullit yonent yàlla moo la war a gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la sa bakkan heure boo déggee ñu wax lu ñaaw jëm ci yonent yàlla bi war na laa metti nu raw na nga dégge woon ñu wax ko ci sa baay muy benn ñaareel bi mooy mboole mi sëriñ yi nekk ci kaw suuf mboole mi imam mboole mi ku ñuy wax su dee dafa wax benn wax wax ba safaan ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma gaa yi lu ñu def annabi awla bil mu'minin mi ngi noonu mboolem jurit ni mboole seet yonent bi awla topp yonent bi moo gën a yey mi ngi noonu awla bil mu'minin min anfusihim borom bi nag ne ay soxnaam seeni yaay lañu dañoo war a màggal soxna yonent bi ñoom la yàlla tànnoon ñu nekk ay soxnaam àdduna nar a nekk ay soxnaam ci aljanna ñoom la yàlla araamaloon ñu sëy gannaaw yonent bi moo tax ñu naan yaay Aïcha yaay Khadija yaay Hafsa yaay Juwayra yaay nangam doonte ne ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu réew mi ñooñee ñu daan dégg ca Iran Iraq fexe nañ ba dugg ko indi fi seeni école indi fi seeni rajo la ëpp ci seeni émission mooy wax wax ju ñaaw ci soxna yonent boobu sallallahu alayhi wasallam rawatina yaay Aïcha ak yaay yaay Hafsa yàlla nañu yàlla musal ci seen ay te it ngeen moytuloo ko seenu njaboot seen kemtalal kattan borom bi ñeenteelu mbir bi mu dindi ci sunu darsu tey bi mooy bu njëkk dama daan xaritoog Cheikh Ousmane daa ji dem yóbbu ko ci samay mbokk ne leen hey Cheikh Ousmane bii bis nekk tey def naa ko sama doomu ndey léegi moo ki ma bokkoon ndey ak bàyyi ñoo yem day dañuy donnante dañuy defante lépp mel ne ay doomi ndey borom bi nag ne déedéet loolu moom bu ko kenn defeti nam dàqe doomoo go fële mu ne déedéet bu ko kenn defeti doomu aadama bu nekk ay mbokk jege ñaaleem ñoo ñoo gën a yey ci moom bu dee ñoom rek ñoo koy donn loolu kon amul kenn kuy xaritoog nit ba tax mu dee nga donn ko am na nag beneen bunt bu yàlla ubbi mu ne xanaa lu dul ngeen def njekk jëm ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne doomu aadama bi yàlla may na ko ceeru alalam bu dee day faatu ceeru alalam mi ngi noonu amoon nga 3 millions bi ngay faatu 1 million bi yàlla may na la ko bu ko neexee nga jox ci say xarit loo xam ne nii moo ëpp sax sa doom bi waroon a doon la muy doon tant que paasewul ceeru alal bi l'islam dina ko nangu mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne lu dul ngeen defal seen mbokk yooyu ay njëkk lii ñu leen wax lépp nag nekkoon na loo xam ne suñu borom yàlla bindoon na ko ca téeréem ba mi ngi noonu Cheikh Ousmane jëlal ñu ñaari aaya yi ci teg rek وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما jazakallahu xayra suñu borom kon mu ne wa is axaza allahu wa is axazna ba ñuy jàpp min annabiyiina ca yenente yàlla ya misaaqahum kollëre ga yàlla fasante woon ak ñoom wa minka ñu jàpp ko ci yow wa min nuuhin wa ibrahim wa muusa wa isa bni maryam wa axazna minhum misaaqan galiza ñooñ day jàppoon nañ ci ñoom kollëre goo xamee ne nii ay dig boo xam ne bu dëgër la li yasal saadiqina an sidqihim ngir mu laaj ña nga xam ne dañoo dëgg woon ci seen dëgg ga dëggu ga wa aadda lil kafirina azaban alima mu waajalil yéeféer ya la nga xam ne mooy mbugal bu tar mbokk suñu boroom day wax yonent yàlla yi dafa jëloon ak ñoom ab dig dig bi yàlla jël ak yonent yàlla mooy dig bi mu jël ak boroom xam-xam yi وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه yàlla waxoon na ak yonentam ne leen jottali leen ma sama jaam yi li nga xam ne moom laa leen yónni borom bi mu ne wa ma ala rasuli illa al balaag borom bi mu ne yonent bi alayhi salaam it wa in lam tafal fa ma ballagta risalata li ma la sant bu doon junni yi santaane nga jottali 999 ya bàyyi benn égal bàyyi woo dara looloo tax ba mbokk julit day gëm ne yonent yàlla avant mu fiy jógee mboolem lu yàlla bëgg ñu jaamoo ko jàngaloon na ko saxaaba yi mboolem lu yàlla araamal jàngaloon na ko saxaaba yi looloo tax ba yow mi xellu bul nangu mukk beneen jaamu yàlla bu ñuy créer gannaawam nga jàpp ne lii da lay jegeel yàlla déedéet yàlla jëloon na ci moom miisaax ci miisaax boobu mataloon na ko yonent yooyu ñi ca gën la yàlla di wax fii ka ca jiitu mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko wa minka gannaaw ba nag di wax la nga xamee ni nii njëlbeenu rusul ya ak fa ñuy jeexe njëlbeenu rusul mooy nuux alayhi salaam mi ngi noonu gannaaw nuux alayhi salaam la ibrahima ñëw muusa ñëw isa ñëw suñu borom mën a jàpp naa ci ñoom loo xam ne lu dëgër la léegi nag bu yonent bi xisee ba jottali jaanam wàcc na lan moo ca des mooy ñi nga xam ne gëm nañ yonent bi dëggal ko as-saadiqin mooy ñu dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci seeni pas-pas ak seeni jëf ñooñ ñooy as-siddiqoon gannaaw ba nag ña weddi yonent bi suñu borom mu ne mi ngi leen di waajal la nga xam ne mbugal bu tar la yal nañu yàlla boole ñu gëm yonent bi ci dëggal suñu ngëm yal nañu yàlla musal ci mbugalam ci defar ñu àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñii kalante di woote sant ala kulli xaal li ma xam ci kal moom aada la bu rafet du suñu maam yi indi mu nekk loo xam ne day jokkali nit ñi tey jii yéen a ngi dégg li may yàq caamin yi yal na yàlla jéggal leen yërëm leen waaye tey bu ma demoon fenn fekk fa ku sant caam ca lay gën a yaatu ma fekk fa ku sant saar dama gën a yab rek caamin di wax mais sunu maam yi ñoo ko defe woon noonu masalan ñun saar dañuy kalanteeg waa sow mboolem presque alpulaar yi kalanteeg waa njaay dañuy kalanteeg donc loolu maam yee ko defoon ba nga xamee ne li ma koy wax da ciy kontaan rek da ciy rey loolu daal kon bokkul ak di changer santam muy sant sa sant waaw mi ngi noonu loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala loolu moom kaf rek la waaw bisimilah naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah
amul benn loo amul lenn loo xamante ne ñoom dinañ ko doon ñoo xamante ne adopté adopté
waaw déedéet kii nga xam ne da nga adopté xale mun nga mu nekk nga doomoo ko yow boo ragalee ne da ngay faatu bàyyi ko gannaaw da nga koy may sa alal lu la ca neex mi ngi mel ne doom boo amul sa yo- ci yoon mën nga koo may ci sa alal lu la ca neex bu dee ne génnul ceeru alal bi loolee islam da ko koy jox bu dee bindoo ko fenn waxoo ko fenn ci testament nag su boobaa moom du donn dara waaye yow bu la neexee nga def testament mi ngi noonu may leen loo xam ne bis boo faatoo ñu donn ko wallahu subhanahu wa taala alam naam xale bi ki nga xam ne léegi papa comme juru ko ci yoon deful benn testament ci moom miraas mi def xale léegi te xale yi màggaguñ waaw te moom lislaam joxu ko ak suñu réew mi te boo ko joxul buñ demee ci yoon est-ce que bu yaayu xale yooyu mën na dogal pour ñoom ñu am luñ ko jox wala déet
ala ala kulli xaal bu dee sharia la ñuy waxee moom moom dañ naan amu ci àq amu ci àq nekk firiwul duñ ko jox mooy ña nga xam ne ñooy mag ña fa nekk suñu gisee ne parce que borom bi dañu bu dee fekkee ne miraas ba la nga xam ne mooy ulul qurba wal yataama wal masaakin farzuquhum minhu waaye daal bu dee àq moom amu ci àq amma nag bu demee ci sunu loi yi mën na ca am àq bu doonte ne ne xëy na am nañ certificat de mariage yu ñu def te fekk ne sëy doom doom ja juddoo na ca sëy ba loolee da ngay gis ne li ma bëgg a wax mooy def nañ certificat de mariage fekk doom ji jiitu na loolu bu dee sunu loi yi moom day doon waaye waxuñu sunu loi yi li ñuy wax daal mooy l'islam moom dañ naan amu ci àq lu dul loo xam ne nii kañ ne mooy baayam moo ko ko jagleel ci testament bu dee jégleelu ko ca testament it ñi nga xam ne ñooy fekke miraas ba nañ ciy joxe bàjjen ca amu ci àq di ci jox nijaay ci amu ci àq ngir dañoo fekkee ñoom it mën nañ ko caa jox ngir ak fekkeem comme nañ cay joxe jirim yi nga xam ne ñeneen ñoo doon jur comme ni ko yàlla waxee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mbokk mi doon laaj léegi Non.
tikkaal yi dama ci daf may fàttali suñu benn mbokk ñun mos nay dawal oto ndeysaan sa fekk Fatou Ndeye gën a feel ak sa fekk koo xam ne maa ngi mbàkke di ko jàngalee seen waa kër boobu bi ñu tasee noonu laalante ci oto yi ñu xaw a jàppante ci coow mais yàlla def biñ ñëwee ci kii noonu rek commencé sant ka kan lañ jaar mu naan ni nga sant kii jaw nga sant ci biir loolu ñu waxtaan ba ndeke kii nijaay la ci man ba mu waxtaanee am na sama jarbaat mbàkke laa ne mu ne Ousmane mooy jàngal samay doom xam nga foofu la jaar ba rek waaw waaw loolu sunu maam yi moom yal na yàlla fay leen ci ci wa- wa- wàllu googee mi ngi noonu xam naa li li ñuy tëjee rek benn waaye dafa maa nettali benn gendarme moom it da koo arrêté ñu nekk di coowul coow coow ki mu nekk loon ci oto bi wàcc ñëw na ko waaye mais sëñ bi lan la mu ne ko waaye xoolal sa sa ki bii duñ koy waxeti njuubeen bi moo nekk moo nekk di ma di ma tardel fii léegi jon- gendarme bi xoolal permis muy njaay mu ne ko af am njaayeen jógal dem la alaa kulli xaal daal loolu moo ko nañu xam ne jëf ju rafet la joo xam ne sunu maam yi doxaloon nañ ko yal na yàlla dépp lañu ak bépp jukko bu yàlla gërëm Euh, ndax lépp luy boole di defar xol yi lislaam da koo gërëm yal nañu yàlla musal ci lu ñuy féewale wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain